ay fan képp moo des ñu tàbbi ci feetu korité bi njëgu ceeb bi diwlin ak meew bi wàññeekoogul ba tey ki ko xamle di Modou Amina Gakoum di ab boutiquier. daanaka dara wàññeeku suukar bi daal deux cent cinquante lañ ci wàññi ci vingt neuf mille cinq cent yi ñu diwlin bi ma nga vingt quatre mille franc meew mi vingt et un lañ ci yokk ci saaku meew bi en jar léegi ma nga ca soixante onze mille soixante la jar léegi kon nag dara moom wàññeeku fi yëf moom dafa gën a seer. bu ñu sukkandikoo ci kàddu jaaykatu suukar bi xel xalaatul muy wàññi suukar bi ndax la ma koy amee cher na ba jéggi dayoo. suukar bi kay wàññeekuwul parce que wàññeeku moom ba fu mu nekkoon mais lu jógee vingt sept mille nangam dem ba trente deux mille ñu wàññi ko ñu ne vingt huit mille sept cent la loolu du wàññeeku loolu boo xoolee ba léegi daa yokk wàññeekuwul de ba léegi prix bi gaa ngi cent cinquante sept cent am na ñuy jaay six cent cinquante am na ñuy jaay sept cent wàññeeku kay defu ko parce que six cent mu mënatu koo jar boo ko jaayee six cent léegi da ngay perte naa ay weer a ngi nii njëgu dund gi wàññeekuwul ak korite bii ñu dënmal njëgu ceeb bi suukar meew wàññeekuwul benn yoon ci marché bi tax ba yi la jaaykat ñi dajeel ni xel xalaatul ñuy jënd di jaay te duñu ci am benn bénéfice